waaye dafa tuuti tuuti na lool par rapport ak population boo xamante ni ci xayma dafa yeewu ëpp na 3 millions d'habitants. Mhm. bu fekkente ni primo votant yi tuuti nañ ba tuuti dañ leen yóbbu 400000 pour primo votant wala mu ëpp ko kon jàpp naa ne loolu am na lu ko waral waaw ndax bu fekkente ni euh, nguur yi fi jóge yépp commission yi daan na mat commission mhm. ak 13 commission ak ñaari commission mobile te diiran bi daan toll ci 3 mois état bi ñëw indi ko 1 mois. un mois yi feet yi ci la bokk samedi ak dimanche yi ci la bokk loolu jàpp naa am na sabotage bu méttee métti bu ci nekk mhm. ndax Sénégal li fa waroon inscrire dëgg-dëgg waroon na am 1 million te li inscrire ci au niveau Sénégal yëpp yëpp 300000 lay toll mhm. kon jàpp naa loolu sabotage bu mag la kon jàpp naa ne bu ñu wax dialogue dëgg-dëgg ci Cissé yi la ñu waroon a dialogue mais ci biir Touba ne euh, liy bindu ci fukki junni lay toll te waroon na ko dépasser. Mhm. ngay euh, plaindre xëy na euh, bés yu matawul yi ak commission yi peut mais farlu gi aussi est mi ngi ci mi ngi woon. waaw farlu gi mënut a weesu xam nga inscription yi dafa daje woon ak mais amul benn commission yi ne Touba man heure bu ma xëyee dinaa wër quatre commission yépp mais amul fenn fooy dem te 300 personnes ci 4 commission loolu xel mënu ko nangu. Mhm. commission bu ci nekk 300 personnes di leen fekk ñoo xamante ne bu ñu xëysee 6 heures te li ñuy jël suur. Mhm. nga xam ne di nga dàqaar yeneen 100 personnes wala 180 personnes yoo xam ne da nga mënul leen inscrire tey loolu xel mënu ko nangu. te li ma jàpp état intérêt moo bu fekkoon ne état bu jub la intérêt mooy population bi am ay carte mhm. ndax nguur yi fi mas li ma wax léegi dana am treize commission ak ñaari commission mobile commission mobile yi dinaan jëriñ mooy déplacé di fekk nit ñi di leen bind ndax kër xalifa général di mu dana am commission boo xam ne fa lay nekk permanent xam ne ku ñëw da bindu mm-hmm. ak benn commission boo xamante ne fu ñu la ay nekk na te mënuñu faa déplacé mu fekk leen fa bind leen population Touba kay bi Macky Sall ñëw dafa yokk mais wàññeekul mm-hmm. kon jàpp naa ne commission yi moom bu doon am na yéene jubal wa ilaa mu am yéene seelal da ko war a yóbbu 20 wala mu yóbbu ko 30. mais est que nga données yu lay permettre nga jàpp ne loxo nguur gi mi ngi ci parce que euh, bëgg naa xam déjà jour bi ñu ndax da ngeen ne lañ commission yi seetlu ko ne am na ñu binduwul euh, lan fan la exactement. mu toll nga xamante li ma la wax lépp ay fee la. Hmm. dernier jour bi. Euh, si préfecture bu Ndaam am na ay jàppante yoo xamante ne am na ba ay yàqu-yàqu am fa loolu kenn soweetu ko. ñu bëggoon a bindu tey bindu ñu bëggoon a bindu ndax dañoo dañ leen annoncé woon ne dernier jour bi minuit la minuit di yem. Mhm. ñoom ñu nekk fa ba 6 heures ñu ne dañuy wàcc. xale yi mer jàmmaarloog ñoom ba yàq nañ si préfecture bi yëpp loolu kenn sowétu wu ko mhm. te loolu lépp li amoon si préfecture bu ndaam moo am Daaru Xudoos moo am ancien commune Daralo moo am Daaru Minam kon li waroon a bind Touba te xañ leen ñu bind loolu kenn xamuñu toll. léegi loolu noonu ban euh, voie ngeen ci am. parce que euh, xëy na danañ ci ñëw ci kanam dialogue bi peut être dana permettre ñu wax yu mel noonu mais seen seen parti jëlagu ci position dinañ ko développer mais li ma ko xam ne mooy en attendant euh, xam nga xam nga xam nga li li doy waar mu daaw mooy li ma la wax léegi ndax ñun am na nguur yu ñu fi jot a fekk. Mm-hmm. Abdoulaye Wade bi mu fi nekk bu euh, révision exceptionnelle bi bu mel ni amee day fay ay panneaux publicitaires ci rajo yi ak télé yi. danañ fay yenn influenceurs yi sax ñu mel ni ay ñoom boobu góorgóorlu moo fi nekkoon bàyyi li mm-hmm. ñi importance bi bindu am ci liste électorale léegi bu fekkente ne Macky Sall dafa ñëw amul benn communication bu mu àndal ren amul benn communication bu mu àndal amul benn communication mais daf ko wàññi te waxtaanu ci kenn ñun ñëpp dañoo xëy rek ñu ne inscription yi la nangam lay am jeex la nangam. Mhm. waxtaanu ci kenn te li ma la ñun ñu ngi doon xaar minimum un million de sénégalais bindu. waaw à a vu. 300000 300 kon loolu jàpp naa ne euh, état bu sérieux mhm. nga xam ne ñëpp la concerné. léegi maa la koy wax sénégalais bu maa la koy wax. Euh, est-ce que tamit euh, seen euh, bañ gu bari euh, nekkul di leen rattraper jamono jii nii parce que lii nii am na fu ñu ko mën a jooye ba xëy na solution am ci mais seen parti jëla jëla ko ci position. xam nga moo daawa Sénégal dañoo gaaw a fàtte mais du première fois Macky Sall woote dialogue. Mhm. woote woon na fi dialogue. bu fekkee nit da laa mille 2020 nga wusi ko ngeen waxtaan ay mbir mu woowaat la 2021 da sëñ bi yow ma woo 2020 nañ waxtaanee woon nañ xool lan nga jot nga jot def. mais loolu acteur politique yi xam nañ ko. effectivement moo tax acteur politique yi nga xamante ak njub ñor na leen dëgg ñor na leen duñ mën a wuy seeti Macky Sall ci genre dialogue yi. muy bëgg a wax mooy dialogue yi passé am na ay avancé boo seetloo bi ñu permettre dem ci élection locale yi tax na ba ñu xam maire bi ni ñu koy falee tax na ba ñu dindi parrainage bi ci élection locale yi ay mbir la yoo xam ne ay avancé la aussi. ci déedéet amul amul benn avance loolu boobu moom la intéressé mais li wér ba wér mooy bu fekkonte ni dialogue bi ñor na ko dëgg-dëgg da nga xam ne intérêt Sénégal moo tax muy woote dialogue ci lii la waroon a woote dialogue mais lu mu daaw da xool jamono ñu toll ñaata sénégalais ñoo mhm. bi ñu concerné nga xamante ni tey ay cent ay milliers de personnes amoon nañu yéene bindu te binduwuñ ñooñu naqaru xool ban nga imaginer moom lañu àndal te war a bokk ci ñi war a fal seen njiitu réew ñooñu nga xañ leen ko ci ci ay tappale ndax soo ko favorable yépp nag ma xamal ne bindu bindu mi dafa déroulé normal gisoo ñu bi dàmbat benn yoon mm-hmm. mais dëkk bu toll ne Touba ak ni mu toll ci day nga ne mooy deuxième capitale ci Sénégal ci wàllu dëkkuwaay doomu aadama nga indi leen quatre commission quatre commission yépp nga indi ko biir Touba moo ki bëgg a jógee Saam laa wala mu bëgg a jógee inscription moom vraiment ci dëkk bu mel ne xel mënu ko nangu mm-hmm. kon jàpp naa